non fii ci Tivaouane moom leer na benn bokk yaakaar ñoo fi mos a gagné xam nga benn élection ngay xool 2014 2014 APR moo moo gagné boobu taa benn bokk yaakaar yooyu woon ci ci fii ñëw ñu woon bi ñuy gagné PS ñëw nañu AFP ñëw nañu gars yi ñëw nañu donc ñu dafa war a gën a yaatu. Mhm. donc vraiment ñun amuñu problème fii au niveau de au niveau de benn bokk yaakaar. le problème mooy au niveau de Benno Bokk Yaakaar dafa bari candidat mhm. ah dañuy ku nekk day candidat mais comme président réglé na affaire bi daan benn candidat mooy am bu ko dee choisir ñëpp dañuy rangé wu kon kay amul problème. Hmm. yow candidat man candidat département bi la waaw ah, parce que man maa gañe woon département bi gañe commune bi yëpp discipline de parti ma joxe ko donc mënu maa toogaat ambition bi ma amoon 2014 moom laa amaat ba léegi donc ren aussi bu ma bàyyee bi jox ko sama sama sama. correct benn bokk yaakaar jànci mbeng il faut ba dem jëli département bi. kon yow jànci nga nga àndal moom ci Tivaouane. non benn bokk yaakaar laay soutenir benn bokk yaakaar. moom laay soutenir mais amoo benn candidat ku ci mel ni Diop si wala. Euh, mais Diop wala Diop si ak kii du ñu benn bokk yaakaar dañu am seen mouvement kii dafa am parti. bokkuñ ci coalition bi. non ñoom majorité présidentielle lañ bokk mais bokkuñu ci coalition bi te coalition demee élection mooy bokk fas bi. Mhm. kenn rek moo ci nekk benn bokk yaakaar mooy jànci mbeng moom la ñuy jàppale. Mhm. te benn bokk yaakaar nag dafa liggéey Tiwaawan benn bokk yaakaar vraiment sag bi sagu Tiwaawan ak sagu suñu kilifa sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ Abdou mu nekk ci suuf mu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci fen sag bi mooy président Macky benn bokk yaakaar lay jiital dañu war a woteel benn bokk yaakaar parce que pour la première fois président Macky li mu def Tiwaawan defal ñu amélioration des infrastructures religieuses def fi quand même esplanade bi gis ngeen ko. Mhm. def fi ay salle de conférence ba nga xam ni bu gàmmu jotee dootuñu wuti ay type fu nekk di tànt mhm. lim ñu defal ci opi ci bi ñu wootee ci mosquée bi mu ëpp lu mu ci contribuer contribuer plus d'un milliard sur la mosquée donc man ruus naa fii Tivaouane président Macky Sall bëgg fi teg fi candidat ñu bañ ko voter mhm. te dinañ def tout bala candidat du président Macky Sall muy candidat benn bokk yaakaar bi muy doon jaañ si gagné fi dinañ ko def parce vraiment loolu mooy sagu sagu Tivaouane parce que il faut ñu xool président li fi def li mu fi def benn président mosu ko fi def du kenn yéen ñi journaliste mën ngeen xool dem leen dem leen dem leen dem leen kër sëriñ bi entourage mosquée bi quatre édicules lañ fa def nga xam ni boo bëggatee dem boo bëggatee dem jàpp am nga foo jàppee bëggee tuur ndox am nga foo tuuree ndox yooyu yëpp ñu teg fa kenn koo xam ne dañ koy jox dañ koy fay ah mhm. yooyu yëpp mu koy entretenir vraiment centre d'accueil bi léegi nit ñi pèlerinage fi mën a sonal fii ci non vraiment kenn mënu ñoo sonal ci président ñun ñoo mënoon loon sonalante suñu bopp parce que moi j'étais candidat Dianthi était candidat man nee naa moom laay jàppale man maa ngi dem ci département bi waratuñu am amatuñu problème au monsieur le ministre département moom amuñu problème que man a gañe ah. maa maa maa maa maay ku ko ku ñu tànn tib man maay doon sa maay doon sa li ñuy wax ni euh, maay doon sa sa sa sa véhicule man maay doon sa c'est directeur de campagne. Mm-hmm. parce que département bi man maa ko xam maa ko gagné. sans mm-hmm. aucune coalition département maa ko gagné. paie APR fii rek la mën a yëkkati loxoom ni gagné naa département bi ànduma kenn. te yow yaa ko def maa ko defoon. donc vraiment ku ñu tànn tamit dama lay accompagner pour nga gagné. Mm-hmm. parce que man l'essentiel mooy que Benno Bokk Yaakaar gagné dans le et dans toutes les autres communes. dama lay wax ni nag actuellement là 557 c'est sûr que dañ koy def. parce que commune yëpp yëpp yëpp Bokk Yaakaar est majoritaire. leneen lu yëngal seen. Dakar même Dakar. Mhm. on est majoritaire. je vous dis ah Dakar dina métti de. on majoritaire lu benn du métti. parce que xali Xalifa Sall dama ko daan gagné Dakar. waaye mais déet déet Xalifa Sall kañ la mos a gagné. première élection yi mos a gagné waxama beneen élection bu mu gagné. ah premier premier ba 2009. depuis loolu gagné wu fa. mais depuis ba léegi ñoom <laughs> te 2012 bi muy gagné ñun ñoo ko jàppale mu gagné depuis lors élection yi fi jàll yëpp y' a au moins 4 ou ñun ñoo gagné président Macky moo gagné. ak la coalition benn bokk Askan Wi. ak ñoom Ousmane Sonko. moo kan. coalition Yewwi Askan Wi. kan la kooku. Ousmane Sonko. kan mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mooy ki leen yëngal. kan ki leen ki leen tax sax tax jur ngeen di wër. yow daal yow bul wax xam nga kuy dawal kuy dawal kuy dawal otoraay ak kuy dawal fare sareetu mbaam bokkuñu bokkuñu vitesse. Hmm, kan mooy dawal sareetu mbaam bi. ah ñi dawal ñi ma wax noonu ñi dawal sareetu mbaam bokkuñu vitesse quoi buñ nee ëpp buñ déparé mais dinañuy dem ba egg. en bàyyi ngeen leen xel dinañ dem ba egg. bàyyi ngeen dem ba egg ba ataaya ba naan zirik ba naan zirik tourné di xool ba xam fan la ñu nekk ba fan la ñu nekk vraiment amuñu aucune chance. waaw yow askan amuñu benn chance wax ma ban dëkk lañu ñu am chance gañ Casamance day la fa xew gis na même Casamance ba tax sax ñenn ci yéen tiit ba mais Casamance non Casamance même Casamance ils vont Casamance ils vont pas gagner Casamance si si a si y a le bon choix les gens vont loolu tiitalul ñenn ñi bokk ci yéen bañ bañ nar koo kenn bëggul faagaal bu ñu bu ñu bëggoon faagaal Ousmane Sonko gis nañ la fa xew de violence dam na fa bu ñu bëggoon faagaal Ousmane Sonko soxla lu ñu dem Casamance xam nañ fu dëkk xam nañ li lépp on est au pouvoir mais vraiment on n'a pas loolu demuñu loolu loolu demuñu nekkul sax suñu nekkul sax suñu suñu xel nekkul sax suñu xel ñun on sait n'est pas violent on a un président courageux un président juste un président honnête un président ambitieux un président qui ne compte pas sur la violence pour prendre le un président poli et un président monsieur le ministre leneen loo xam ni du ma toog ak yow ba noppi te waxuma ko mu di li nga xam ni moo yëngal Benno Bokk Yaakaar ak seen coalition bi mu di mburum passeport diplomatique bi lan passeport diplomatique yi nga xam ne passeport diplomatique yi nañ ci wut ay ay député lañu xam nga député xam nga problème bi mooy njuñ njaaj mënoo wax ni ci député yi rek la nekk wala ci kii la nekk wala ci benn organisation socio-professionnelle dafa nekk ci société bi ni ñu leen war a sanctionné muy député muy ministre muy nañ leen dóor sanction yooyu c'est moi je suis d' accord que ku jàddu ñu sanctionné la jeex na mais ñoom c' est des individus même bu ñu nekkee député nañ leen teg li war c' est loolu laa loolu laa ni mu yéexee moom jàppoon ni dafa am. comme non yéexul parce que problème bi mooy c' est un c' est un pays de mhm. ko gën a yéex. ko ba léegi. <laughs> boobu jeex na aussi c' est ça ñoom ñoom ba tey ay avocat ñu ngi ñu ngi laaj ñu jox leen dossier bi ñoom wax wax am nañu dossier bi parce que amoon nañu ñoom ñi ku génne ku génne ku génne les les les les secrets des des des de des trucs à ci gendarmerie kay am nga am nga lépp yow yow bañ nga ko ba dañ doon wax gendarmerie génne nga ko kon kay ban dossier ah, ngay laajati. Ah, dafa am ñu jàpp ni dossier bi dafa am mystique ba benn juge nangoo koo nangoo ko jël ku gëm mystique xam nga loolu kan la ku gëm mystique. ba tey ba tey boo gëmee mystique. ba tey mystique di jàpp. ba tey kenn remplacé gul de. juge bi nga xam ne moo ko yoroon le temps de la justice et le temps du truc dañ leen yi moo leen remplacer. Mhm. a pas de problème affaire mystique mhm. la justice le baromètre du président la c' est la justice le baromètre baromètre suñu mandature un cadre de gouvernance fiable. Mhm. mooy la justice la démocratie la justice va s'appliquer à tous les citoyens qui sont en porte-à-faux par rapport à la justice y' pas de problème du tout. monsieur le ministre ñu jeexalee ak terre bi ba tey. Euh, nee na décembre lay daw. Ah. gis nañ aussi tarif bi euh, dévoilé nañ ko. Hmm. loolu euh, ban commentaire nga ci def. non xam nga gars yi dañuy def rek c'est-à-dire tarif bi dévoilé guñ ko parce que président Macky Sall mooy décider ban tarif lay doon ban tarif lay doon. on pas encore dévoilé gis nañ kat on est en train de faire des mhm. pour am tarif pour am ban tarif la xam nga waxoon nañ fi 500 800. 600 jàpp 1200 waaw après ñu waxaat 600 1200. Mhm. on est en train de faire des simulations de tarif pour après yëpp ñu jébal ko président parce que un un tarif un tarif c'est extrêmement important c'est un tarif c'est c'est c'est économique c'est social ah tarif président mënoon mooy déterminer tarif bi parce que tarif bi ça am na tarif yoo xam boo ko defee dafay doon da ngay subvention mm-hmm. te subvention état moo koy def mm-hmm. président moo koy def mm-hmm. donc président rek moo mën a wax je mets tel tarif ah et tarif boobu mu ànd ak telle subvention mais ñun on ne fait que des propositions mais ba tey fixé guñ on a fait des propositions et d'ici d'ici bi dootul yàggati le président va décider des tarifs qui vont s'imposer à à ce transport là transport bi nag. Mhm. bokkul ak autoroute à péage. autoroute bi terre bi ñoo ko moom Sénégal moo ko moom entièrement. Mhm. France moomu ci dara. beneen dëkk moomu ci dara kenn moomu ci dara lu Sénégal moo ko moom entièrement. Mhm. recettes yi am aussi Sénégal moo koy jël entièrement bu recettes yi yokkoo doonul comme autoroute à péage bi nga xam ne que dañoo toog ba caag ñi ñi fay jàll yokk. ba pare euh, duñ ko mën a récupérer parce que dañu signé woon contrat ak kii pour terre bi moom ñun ñoo ko moom entièrement recettes yi bu toogoon jógee un jon vingtime Sénégal moo koy moom suñu diggante ak décembre waaw un mois de ko wàññi ñu ngi ci octobre ça fait deux mois deux mois deux mois dix jours un mois dix jours deux mois dix jours décembre le premier décembre le premier décembre da ngeen koy ba non le le 24 la ñuy wax cadeau de Noël cadeau de Noël waaw commencé daw actuellement on est a fait mais comme on a donné on a dit en décembre on va attendre décembre pour régler rafetal affaire yi régler lépp quoi. rendez-vous donc décembre. y' a pas de problème en décembre jërëjëf monsieur le ministre ñu amoon mbégte dalal fii Sénégal 7 lan mooy sa mot de la fin. mooy may gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni que euh, ñëpp nañu euh, élection yi ñëw. nañ ci dawal jàmm jéem a vendre ku nekk jéem a jaay sa programme ah euh, jéem a dugal la force de l' bàyyi l'argument la force de l'argument bàyyi l'argument de la force qui ne sert absolument à parce que politique bi temps bi dafa tuuti loo fi def di ko rëccu nag soxlawul rëccu et la la force est là les forces de sécurité sont là pour maintenir quand même la sécurité à tout le monde pour ko mën a ñu mën a def campagne mën a wax nit ñi lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg lan la ñu defagul lan la ñu bëgg a def et tout ça pour que ñu vote en âme et conscience <laughs> boo gisee ko ragal rek mm-hmm. mooy teel sànni xeer boo gisee ragal mooy jéem a xuloo quoi. Hmm. bañ a egg ci avènement bi quoi ah. <laughs> kon da ngaa jàpp ne ay ragal am na fi. ay ragal la ay ragal lañu opposition moom opposition vraiment man sax opposition xaw ma tax parce que problème bi xam nga boo ragalee. ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay nekk ci ngay nekk da ngay intérioriser violence. mais ñun ñi nga xam wóoruñu dañuy gagné. ñun te ñooy defar dëkk bi wóor na leen da ngeen di gagné lu ñu fi yàq lu ñu fi yàq. wóor na leen da ngeen di gagné waaw waaw parce que dañ ko liggéey ba pare. Hmm. li fi président liggéey depuis bi mu fi nekkee mënuñoo bañ a gagné fenn.